niilattakaa kodon mutaka Ireland, UK, Europe, USA, Canada, Switzerland anin banku to malmu meto. Supersonics le itadulade. Anada di masangi jama Gambia banko kam se kodo tanole ibe Dao da berin katon fokoina andum batati je. Hade batati je se kodo tanole ka bonan bantala banko to UK, Europe, USA, Canada, Switzerland and in to malmu beto na do sone yata a tariyata a koita andum Gambia suriya bankogal kan? supersonics le dinkira siyataka tambinin tumal mu meeti supersonics be banku tan sabani nani la foto fota fe ndu bankol ila google play store to walla ila apple app Sign sain ye ya supersonics la money transfer app o download pour ifa muna fang na service o You can disconnect your internet. Your wireless. You can waa mbokk yi gis ngeen ko ah, jamono ji nag ah, waa UDP ah, xewle tey nag moom Ousainou daabo léegi tey mu ñëw wax ak ki nga xam ne moo nekk askan yéen a ngi ko gis ko yéen a ngi ko gis ma ne ko yéen a ko gis right now Lamin it seems መንጎ እኛንጎ እተተበልተፈለ እንከረ እንሸመያ እንድንፈ እንበለፈ እንኩሎ Okay, while coming ñamedirom uh, united democratic party ñin wato be batun kan wato mi yalan ko la usen da be fundan nan pour kanana kana diamu mol ye mol ñin tambe ngana dibe delegation o mi yalan ko wala dara ya bangu be murum murum na sante ndi be kan kanang a ah, pipeline a ah, la usine ɗaɓala korɗañin to nal nyabal nal ɓe juuɓe rol teñin demmeglal ñaɓe wolla délégation oñin felantiɓe ɗum kan nan ni ɗum usine ɗaɓa fanaɓe fundilanan ɗamiyalon kamina diyamula mooli e parandirol ɓe kekande pour ñin ah, kammala ɗon asena a nyin ta ke a mi alon ko wollom molti mi alon ko wollom supportalti walla wollom sympathisalti wol a united democratic party nyin soñin tan men oɗo alñaɓe walla united démocratique party ila mooli men laalan ko walla mi simpata e saldi assalamu aleykum yes ito ɗum ok sa fof noon moole muneɓe keeri janteɓe ah, Uh, signed another uh, next president, another one welcoming from Kongola Jan, signed a pipeline Jan. Mbe condemn, mbe share Yeah. muna kine ndengi ada ɓuran laadaba noon muna kine you choose laadaba ngaajindemo laadaba udp mo laddiɓe dawde so mi andan naata padiyo ɗo padiye mi an ko alwota gambela nafa kan samo oh, ok ok ok ok I can do that yes I can do that okay, men because eh, ngaaji ko padiye ñin adasi banko bondino so wala sawo padiye ñin

mena ah, manjo ah, yalo sanya be nyame me men eh, nyine kam maso no banko mol le très fambulu banko mol je banko ya doku adade nyame mol la nyanto ya so lan sanya wala na banko mba fight kan ka make sure human rights and democracy ay ta banko kanja so yudi bi da wala dum ba make sure ko ni alage hmm. ban ni alage fan 2021 election mba win inshallah a baro ah, a ye n fele nka tombo min kama a ma o do ko kɛ because n'a b'a ɲa baro man kunda a ye n dagɛ fɛn kɔ transitional government nam a man na kana ka do ko kɛ bari ka kowal da kɛ rectify min tanbita nu bari baro ye n tolu a ye mɔne ba kɛlɛ a da banko m'olu fele bari nka kowal min kɛlɛ saa in tɛ a bɛ olu cɛ kan wala baro lafa k'a ɲini by all means a ne yɛrɛ la n b'a inshallah mun advice da sere men de banko ha ngamen so wala banko mo lu ka de faw kana ko men ngambe lo nyamen anin kila ha jolong december on the 4 nin alla ke mbe nga di udp la pour banko mo kana nyamen udp la boxo nga me fa fa tep tep tep tep mo ni mo kana songa mo mo kana kele ala ma len be ni ka de ala barka thank you abarka thank you ujo oh nda to mo fatiam lati Ah, ah, um, natanong uh, Dorong, uh, the nationwide show uh, with um, His Excellency, um, the President of the Republic of Gambia, Alhaji Hussein Odabo. So, um, botanantola nana da botanantola kanana do purka mo nata wala jambi. Yeah? Huh? I have to get up. Okay. um, coming up from fa tamleti um, nata jandoro uh, nata purukana um, okolusiano dabo the um, his excellency president um, of the republic of the gambia um, alhaji usenu dabo ni wala botanan tola rong e nationwide to pour ka banku dingol ka candi uh, ka karfodi banku dingol la anin kata ka itandi banku dingol la jumalo usenu daboti pour ka jiko itandi mola ay bala fami soto gambianole anin ay nol kanu nyamin anin pour gambiyeno leydi sisono min ta sayin pour ka uh, président adama baro pour ka bowa sakunda kendo min ko united democratic party pour ka londi gambiya kono so mbotana wo tolla nata nan mputata sayin abina bina nan dorong abina nan pour ka um, uh, uh, uh, kakacha le hani sayin dorong uh, and you can imagine uh, the most exciting part of it is tenu um, hani sayin uh, molbe sirin silo kando dole matlal fene matlal landi dole basol fene still pour kaje doron ko kaje ko useno dabo uh, hani sai and imagine time mbe keri sai hani sai doron pour kaje ko itelala because i gambian ol kat hat anu gambian ol fanaya kanu bake bake bake so wo kanu kan uh, ah, obviously we intol be exactly uh, ah, sai hani bi doron nata doron pour rom comme ka fro hani bi doron ay la last message di uh, for the talk ani gambian ol kacha Bag. Why, why, why Lawyer Dabo? We have a lot of parties here. Why, why do you choose Lawyer Dabo? Um, we simply choose Lawyer Dabo because um, Gambians, I Gambia Lawson at his heart said earlier that Usain Dabo is the right person for the Gambia because um, I tell you about first of Gambia, I new like Gambia, but um, just not come out Gambia. Um, um, a Gambia no nyini ka kanko alala karte In Alisindi for the past 27 for the past 26 years we're in the 27 year now uh, ah, and anu mu mune wasabu molo mi yalla ka je gambia be kole amin kono gambia no be bata min kono so i think uh, ah, dabo is only is only right person he's the right candidate for the gambia now pour ka je ko ka banko nyim mara anu ngalon ko ni ngani banko nyim mara kole amin be larin gambia kan usene dabo e gambia soto nyame at his heart obviously wo kole abe wala larin kane so this is why it is usene dabo always All right, thank you very much. Thanks. Yeah. Slow. Hello. Ante bine maro. Ina na muna, ina muna. Uh, first uh, vice president, female youth wing. At the same time, um, I'm a counselor representing women and children at KMC. wena isa fono mo le biyale mo le jam nata mo ne la well ntata nation wide to mbe election wato le kono um ni election wato sita IEC aka aka priority di political parties la ikata ye banko round ye diamu ila molye ya itandila uh, ye men soto ye uh, politiko kono pour nié ye di la i e be banko taamandi la nyame so wo agenda nka taa wo le molia moolu na pati liida yitandi a ŋa sembentu ya ŋa je ko ye kartewo di la andu ñinaŋ a musoolu a ye kaŋo soto baake ñiŋ karte fayoto to i pareta faliŋo la aniŋ fondinkewol nte ka loo fondinkewol niŋ musoolu le andu ŋa je le ŋa ñiŋ sate wo yaay kabirin bara fokoyna ŋaajele fondinkewol funtita ye onasipta yaaje ko uh, sama ite ñanta ñin banko bondi la loota ye fasaro ke yayitandi ko tariko min be la ñinan itel fanan be tarla o tariko kono le i baajelale ko faliŋo e ke ina bataye boy kan katum i lafta men la jam kake banko ñaton kooti a keta moti a karanta ay londo soto anin melɓe dow kuwola fana ye londo soto a koyte male ko ni ya sindi aɓe ñin banko falinnale aɓa jelal ko fondinkewol la hakko aɓa la musol la hakko aɓa dila gambiya ɗiŋol aɓe la sila kan mai ya ko ila bata adula aɓe bole kanne wolanna tata wolela ganna fay fon agenda nga waafi nganna candidate ñi waafi andu nga jele ko 4th of December gambiyanol be carte o fayla a uh, UDPA e, ibe alaji Usenu Dabo tombonna ay ñim banko bonde muna kinna lafa baro jini la adama baro ntelle nga sindi UDP ntebe mol konole me adama funtindi ñim banko kan andu ndiyamuta musoli usoli ya fasa ndiyam ta funding kewle ye ya fasa ya sindi ni silanka bari ngabula bula ada mama la adama ay jam fanati gambia dingol kan luwolu be lori ngabe be gambia dingol nenna kata kan nenne ka akalo akasi so konko ko sembo ba anda o aka tawle abe taunte yalla kata tele ko gambia dingol ye sembo be wol lebul ewiye yaya jamme bondi gambien ndigol ya fasa ya sindi bara mambara a men kela gambiya ɗigon mbe batari ngajele musol ɓe faala tiŋoto na lopitanol to bore tijeto to bari aman lowola a kunna nafa a executive soto iɓe siiri ɓe tulunna gambiya ɗiŋol la wala na mba bondi la ku be ɓe musol la batadu lato ñin banko kanja na marché oto musol sitta marché oto ibuka sote be men sanna jeeto katun fengo be da koleyata musolu ila dula ika musu jama bi jang imang education soto e dea illiterate bari ye hammo soto ika doku ke isembo o wo do, uh, sembu doku adama baro ñanta lolale ayaje ko ay jodangol nati min be musol mako ila wo sembuɗo da bari aman bara wala ay min ke hani kodo min aloke ta pour wo a wo mafaŋo la agriculture la maafaŋo la a ye wo koɗo ta yake men diyate ye jambanɗo naati ñimbanko kan jambanɗo ya bondi e kata waafi a sénégal niŋ mali uh, ah, gambiyandiŋol ma soto musolu batata e tonata uh, ah, walanna ye tewo siti i ba jelal ko adama baro i ba bonta ñin place o to Are you ready to, to, to take up this responsibility? Because you have to atle baro, atle baro idan di Gambian So what if uh, baro be fem ke ka what Are you ready to take that responsibility? Wait, I'm um, sorry. Atle baro introduce mole. Atle baro ah, idan di banko mola. So ni what koleambe keri ko kanjam falde pareta pour gaw responsibility kam pareta e le wala tambe ngan tewo siti um, tu, katu ngabula menna amam barala ntel nga uh, tombon tumo menna niaje nga tombon alphabet wole be nun larin prison andunga yas ya sorong ay man dalila sota kan lota nga mo funtinde ate keta keta adama barote a nga semben tuya nga sindi nga bula men na man bara la ten fana mbaje la komba nga modo sayano abaraka men yalon ko diwol mu dindigal fon meti komi mbaɗinade ñamen toon sani noon délégation o ñeñalon ko walla mo la exécutive olde sa enten ka fuɗatnam sanne ka furana exécutif wol fenandin sanne ka furana a midin dulañin to dami alan ko loya usen dawala korda to exécutif wol fenandi furana je zain kana nan kana loya usen dawa batu pray na chake walla na kibarol di molla mel alan ko wolle be lori jam pour ka batu batu Besmele, besmele, Yes, Lamin, it's getting interesting. Uh, the former Talib Ahmed Bensouda, mayor of KMC, Mo Duga right now. Mo um, taxit uh, ñu ngi gis ne ñu ngi stay tuned ku ñu xaar ki nga xam ne honorable Ousseynou Dabo moom mu ñëw nga ok comme ya fatou quand même fotota ɓuura ñama a ñin tembe exécutif wolfeɗen ndi futata nande wolle ɓe siranta kan ten comme i futata nanne sayen ten ala ñaaɓe wollel ten mari sok kata ɓula a jiyam segala wolle molti mele alon ko ñin tembe la wolle futata nan ten kana nan kasi kata ɓula amadou sane ñin tembe la doron mbo ala a loya dabla kordal to wolon pipeline ti aɗame yaalon ko aɓe parilana pour ka chake after the uh, campaign nation wide campaign yo miano ko e wala ke aji yamu ndaw bo ñewna aji yam seka tamit gis nañ ko fi right now ok komin fato kamin foddoroma wollam aji yam daw yaaɓo o aji yam seka fana abidjan nde wollam exécutif olti komin gafoñamen ɗon mol a molmen wollamel yalon ko a wollam exécutif olti ete begle fenandiɓe ɗum kan nan a miɗin dulañin to wollama ɗum kan nande ñillom wolde mel yalon ko wollamo udp la ñaton kolde walla ñillamo wila alfaluti wallaɓe ɗum kan nan miɗin dulaɗo dañin temɓewla ma felandi siri jañi dañin temɓewla

UDP jigéen a boot jigéen a boot looya Ousainou Darboe te bari nañ ci torop te foog naa ne bu fekkee ne am nañ jigéen ñi nga xam ne bari nañ ñi si UDP liñ bugg a pour am pour jigéen wala liñ bugg a dooleel jigéen wala liñ dooleel jigéen bi si ñun tamit ndaw nañ def lu nekk si yar ak teey def lu nekk si yar ak teey lu nekk nañ ko def si yar ak teegin parce que élections euh, fu mu nekk ni dañ on easy ndaw yi fu mu nekk ni xam naa ñoom ñëpp seen seen ñu ngi xaay nañ jël lu nekk rek waaw lu nekk rek nañ dal min mbaɗi lali amo ñamen to wolon mara sokti mara sohle ɓe ɗiyamu kante o watola damme yalon ko sayna a futata nan a ah, mbitindulañinde walla lo yaɗa wala korda to pour kana kaca ke dame yalon ko ɓe batodiroɓe kerine walla ɓe batodirola pour Thank you. Oke, kami ok komin mbaɗi gafare ñamen dorom ɓe woltoto ñin tembegla la usen dabo batun fundi nang, ay na kibaro a kibarodi walla ayna Ya, ini dandile ko na fundi a ning kafol be futan na wala a delegation to wala a mel ko ani wala tala tola me yalan ko ida a banku be murum murum na ni na fe fura ala ko da da me yalan ko abdela na pura na ani kacha ani as kibar di la na kacha ke ni te me ngam ala wolta tenan Thank do

speaking and Lord Charles, mom and Guna waaw jërëjëf Lamine tey meyo Talib Ahmed Bensouda mu ngi nii ah, Bensouda xam naa ne eh, nag mu ngi xaw a soona dinañ ko def nii rek mu ndaw naka nga def maa ngi nii si jàmm rek asalaam tey noo leen gisee li ngeen am xanaa dellu bégati rek ak kontaan si yàlla ak yonent ba sant bu baax a baax a baax dem nañ jaama ñëw a si réew mi liñ bëggoon mun am ne yàlla may nañu ko ba pare incha allah waaw macha allah. tey moom gars yi soo na mun a ah, ki nga xam ne moo nekk ah, suñu ah, dina ne jigéeni UDP bu baax la rek nga wax ak bi aji yam seeka xanaa di gërëm jigéeni UDP nañu depuis depuis 96 dañ bëgg a allah nga xam ne bëgg na xëcc daabo buggee a waral lii te lii dafa wone comme December 4th xëcc dafa win élection that's no doubt na ko ñooy win ñooy win victory ko nag mu ne ah, kon ah, jeex na ma ne na su ko defee rek nii rek la ñoo demee ñu ki nga xam ne mooy honorable Ousseynou Dabo euh, su ko defee borom euh, moom it mu mun a ñëw rek su ko defee nga gis ne askan bi dinañ gis euh, lii live and rek fii si suñu cal wax naa leen ko Gambia télé yi bari waaye boo ko ñu façon yes yes come come ay na toogal si suuf su ko defee rek a ah, Gambia ah, nii rek la moo demee ma ne ko nii rek la moo demee all the time ah, gis ngeen ko ki nga xam ne mooy honorable Dabo right now moom moo nekk di ñëw ñëwabut nag comme ni ngeen ko gisee ma ne ko ñëwabut ñu ngi xaar li nga xam ne moo nekk security bi ñoom it ñu ñëw Talib Ahmed Bensouda nag tey dafa mel ni dafa soona ma ne dafa mel ni dafa soona waaye si la bokka ma ne ko dafa mel ni dafa soona waaye si la bokka gis bi gi nga xam ne mooy Marie Sock ah, Marie Sock moom it egsi na ma ne ko Marie Sock moom it egsi na ah, fu mu nekk nii daal yëpp a ngi seet di xaar ki nga xam ne mooy honorable Ousseynou Dabo mooy honorable Ousseynou Nungu Kunda Dabo ah, comme gars yi nu ko dee waxee all the time ma ne ko mu ngi nii ma ne ko mu ngi ah, kon nag ah, saa su ne nen bàyyi xel bu baax a baax a baax ah, li nga xam ne nag moo dee xew bu baax a baax a baax a baax yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV security bi nag mu ngi tight ma ne ko mu ngi tight this current minute su ko defee rek a ñu nit nii rek la ñoo def Ah, ñu emale ko ak li nga xam ne moo nekk askan bi ma ne ko su ko defee ñu emale ko ak li nga xam ne moo nekk askan bi ah, gis neen fi Mary Sock mi nga xam ne nag moom si independent candidate la bokka ah, ñëw na jamono ji nag booka ak ñi nga xam ne ñoo nekk United Democratic Party Mary noo gisee UDP sa ñëw neex na la Tarap, tarap, tarap, tarap. Uh, it was great. It was a great journey. waaw jërëjëf. Ah, jigéen yu am doole fi nekk nga ñëw join leen noo gisee loolu. ah jigéen yi foog naa ne moo tax ma join leen parce que dama fi gis ay jigéen yoo xam ne jigéen maanaa jigéen yu am doole jigéen yu ah, mu ah, te foog naa ne together mun def li nga xam ne moom lañ jigéen yi si dëkk bi ñu koo taxawal mun na liggéey si biir dëkk jigéen yi ak dimbale ndaw yi tamit si biir dëkk bi. macha allah macha allah ah, comme nag ni ko gisee ah, fu mu nekk nii mu ngi ah, den si liggéey bi la bokka gis neen nag ki nga xam ne mooy Tuku Jaalo Tuku Jaalo moom it maa ngi nii di ko seen moom ñëw ak li nga xam ne moo nekk askan bi jamono ji Tuku Jaalo moom leen gis ma ne moom leen gis teyit moom leen seen Ah, cuku moom it mu ngi nii ah, ñu ngi gis a ah, former minister of finance su ko defee nga génne nii rek ñu mun laa nataal askan wi mun laa gis xool ma xool ma waaw former minister of finance muy Amadou Sané moom mu ngi noonu mu ngi nuyuwante ñi nga xam ne nag ñoo nekk jigéen ñi gis ngeen ko gaa yaa ngi nii di ko dalal ma ne ko ngi nii di ko dalal xool li nga xam ne mooy reception bi. karan nice ñu bàyyi honorable Sané moom ba mu toog si place am su ko defee rek ñu xool ah, naka la defee rek ku am ko wax naa leen ah, télé yi bari neen si dëkk bi waaye it bokkuñu ah, télé bi nga xam ne la dafa ñëw di leen feeñal ñoom leen gis su ko defee askan bi mun leen a gis bu baax a baax a baax suñ liggéey bi nag yombut waaye si la booka xane na bu saane na nga def alhamdulillah ñu bàyyi la rek nga wax askan bi naka nga gisee seen toonaaw di tey Uh, it's overwhelming. Um, so it just reinforces. Uh, just reinforces the, that um, UDP needs new come home. So it's the people who own the party. Nekune party mom unity, niti nyomom UDP. an wone nañ ena nañ alhamdulillah jërëjëf jërëjëf jërëjëf mën na ko jërëjëf su ko defee rek Gambie comme ni ma leen ko waxee ah, dañoo def nii rek ñu ngi live soo bañ a indi li nga xam ne mooy dead air ah, ñu bàyyi noonu rek ah, di leen inal ni koy gën a gisee all the time enjoy leen seen télévision mën na enjoy leen seen télévision bu baax a baax a baax su ko defee rek ma wax askan bi ñu bàyyi xel suma bagage yi mu ngi taxaw fii balal leen ma ngir yàlla bro. waaw honorable Ousseynou Dabo fu mu nekk nii moom moo dugal si uh, waaw ma ne moom moo nekk di dugal si uh, jamono ji uh, ñu ngi ko gis mu ngi noonu di dugal si ma moo nekk noonu di dugal si fu mu nekk nii ñu ngi nii di ko gis ko defee rek askan bi. ñu def nii rek gis ki nga xam ne mooy honorable Ousainou Darboe mu ngi ñu joxe speech. But I thought Banta's cameras will are blocking the view. Thank you. Very much. Thank you very much. Thank you very much. Alhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil alamin. Nali 10 2. Nali my compatriots, I am humbled yet by an order rapturous welcome by the members of this great party. This welcome campaign team has been made possible by your devotion and your dedication to the United Democratic Party. Two days ago, Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Two days ago, I pulled out of the campaign trail because after performing the asset while folding my prayer mat, I tripped and fell and then sustained a minor fracture. I couldn't that attended to in LRR in the manner I wanted. So I had to come back to Banjul to have better medical evaluation. I'm thankful to the West African Holistic Center as well as AfriMed for their professionalism and for the good care they took of me. I have been looked after. attended to by one of Gambia's most prominent surgeons, Dr. Keba Marena. Alhamdulillah, today I'm in a very good state. I know that for the past 48 hours, you are very concerned about your Baba, And uh, I also know that for the past 48 hours, in continuous prayers for my speedy recovery. And I know the Almighty has answered your prayers. On the 13th of November, I left Banjul through Barra to go on a countrywide tour. It was the most spectacular tour by the United Democratic Party. I met Gambians of all walks of life, from Bara to Pasamas, from Fatoto to Banjul. I heard their cries, I heard their concerns, concerns that they share with us. These concerns are not only unique to the people in the rural areas, but it's a concern that are universally applicable to all Gambians. During this tour, people who are differently able, people had to travel from Samkunda to Fatoto on wheelchairs. And they came to show their solidarity and their support for the United Democratic Party. They came to show us that they have bought in into the five-point agenda. We have now taken our campaign from the provinces to the greater Banjul area. The greater Banjul area determines who should and who should not be president of this country. my compatriots, as I said, said at one time, this is the election. This is the election that will make a choice between a leader that is centered and a leader that is altruistic. This is the election at which you will make a choice between a leader that is, that is between a leader who is really concerned about the economic progress of this country and one that is concerned only about his own personal well-being. This will be a choice between a leader who lives up to his words and that does not live to his words. When we went to the polls in 2016, we were really looking forward to a Gambia that we're proud of. We are looking forward to a new Gambia. In fact, we coined the word the new Gambia. But alas, the foundations on which this new Gambia was to be built have really not been have really not been worked on. The basic things, the constitution on which the foundation of a new Gambia should be built was really jettisoned and thrown into the dustbins. President Adam Barrow hijacked Gambia's agenda for his own personal gains. And for you, the Gambians, your choice is now between a leadership that really means his words, a leader that believes in constitutions, a leader that believes in constitutions, a leader that believes that the executive should not be that too powerful a leader that believes that there should be decentralization. That is the choice you have to make. You have to make a choice between a leader corruption and a leader who encourages corruption. We've seen we've seen what has happened at the Kanfin Municipal, Municipal Council when the law of that, of that council convinced by the ideas and philosophy of the United Democratic Party that corruption has no place in the Gambia, took the appropriate steps to ensure that things that were going malpractice was properly addressed. But alas, what happened? The executive intervened and ensured that the persons who were suspected of being involved in malpractices continue to be is that the government you want to have in this country? No way! No, no, So, my compatriots, we come to offer you a government that is different from the current government. We come to offer you a government that will have service to the people of the Gambia, a government that will fight corruption, a government that will look after the welfare of the ordinary Gambian, a government that will live up to its words, and a government that will really look after the environment. We, have seen how much uh, destruction has been done to our environment, and this we must arrest. Not be people who will really give licenses to loggers at the detriment of our forest cover this a government that will ensure that the economy of this country energized, that investments are encouraged, and that there would no, no investor who would put a dime on the table because he wants his or her documents to be attended to. That is not going to happen in this country. I am grateful to you, Gambians, and I believe that you and I will finish these last nine days of the campaign with decorum. We will all do violence. We will all ensure that on the 4th of December, we will go out in large numbers and vote. I ask, I ask households to escort members of their household to the polling station and cast their votes. I ask others to go with their friends, to go with their acquaintances, and to tell that this is the defining year. This is, the, this is a, a, a, an election that is very consequential. It is the election that will determine for the next several decades how Gambia will be governed because it is on, by this election the foundation for a new Gambia will be led. And the United Democratic Party is only instrument through which this can be done. I want to appreciate my comrades on the campaign, former Vice President Bakar, Bakar Dabo. I want to appreciate him. I want to appreciate him for his in-depth analysis of the situation in the Gambia. I want to appreciate Marie, jo, Marie shocked for her continuous interaction with the women and how she dealt with women issues, Janaba Ba, and all the rest of the, of, of the campaign team. You are wonderful people. You couldn't have it better. The Democratic Party couldn't have it better. I also want to acknowledge the services rendered by the UDP security as well as the police intervention unit. They are great people, and indeed, the presence of the UDP security and the police intervention unit on our campaign trail just shows us that merely there's mere suspicion between Gambians, or Gambians have certain ideas, certain views about our security forces, which is really not true. Once we interact, we are able to understand each other. And this has been done during this campaign that indeed the Gambian security forces, at least police intervention, Gambians, working with ordinary Gambians, and our security forces, our security units also realized and accepted the fact that these people in uniform are our brothers, and we all have a common purpose, a common destiny that is to make Gambia a better place. I want I want this to continue in our relationship with all the security outfits of this country. The media has been extraordinary. Every moment, every minute of our activity was really put on the airwaves. No one, I mean, no, no, no, went hungry for information on our campaign trail. I congratulate all of you and I appreciate you very much. GRTS, Kirfatu, Paradise, um, Kamaraba, UD Media, and all the rest of you. thank you very much and we believe that you are doing what is expected of any media outlet in a democratic dispensation. I finally have to thank three people, and I'll name them. Tida my niece, Nakanja Ture, also my niece, Anulo Dabo, for taking care of our stomach at the appropriate time and in the best of ways. Thank you all, and Ajiyam, thank you very much. Ajiyam Undau, thank you very much. We appreciate what you have done and will continue to do. Baringlu, ma tentu, ngala tentu Eh, alenyin bendun lo menke na campaign team la ayaitan le united democratic party movement ayaitan le na nyim party dinglu yela party yo mutanyame nyim party mol mel bi janto suta funding kewlo aja kava ko nyim party ti men nyanta ka gambia bonde eh campagne kono withdraw tale pour pour pour til dantan kadu kabir ngalan saro sali kaya mbe baso ko la tumo mena eh, ntakita mboita na na fraction ndin soto bar bawo facilitation man mansa tono man sa konko nata banjun janne pour mo docteur sinjeno isin topoto no uh, eh, west africa holistic center wala folo yenje yeduku kendeke nata ensemble afrimed afrimed las medical staff ni membijeto ila nurses ni wonderful people in fact even right now One of them is with me here in Bongongo. Ian Topoto and uh, Dr. Marena Mayalan Kafoko, Sojan Lomo, Sikata Mena Dondoto, Ian Topoto Anyama, Alhamdulillah, Najik Ibafala Watu Watu Sibito, you know, Nadbebe Borokeno Lanyore. So <laughs> I thank Dr. Marena for that. mbota jantole kama bara ka gambia be yayi ka gambia ngol ngeje ngela kumbo moy ngela wosio moy wosiol kata munti jio dara gambia dawda wosi la jio kaba ko bi mbeñi jamano mento molbe ta kolong leto kolong me yalon kaba ko amanku toto pour ka bi jeto molbe kumbola loptanol la ebe wulol kono silata dame ikoye ambulance ol sambe jeeto e ma lopitan ol soto wo kumbo le be ke kan gambia kono e be ko baluwo koleyata gambenkol boole kumbo ko ngalla moy la aɗum sifa bele naata mool botanan sankunda mais alon ka ko alhamdulillah man sola a soto kalola karosole kan par ka bonan sankunda kana fo patoto wayme yitandi wolan kaba ko ñin gambia kuwolu ngal fanal daabi jeetole adum be jara jeetole ñanta men fola jeeton sa fono jeeto ngo mool nga mool jamele alon ka fo ko i mankita mo saba yaño tambindi nan iɓe mumumu nawle kadiya muñe ila ne kanto ka foñe itella mirati gambia kañone ite lafta fandel falindiri sifa men na gambia woto ñing tamo ñing ay karandirole kenñe ko really magan sakunda men jikita kaf ko mbatala ni ngata mo lebi bijeto mais fo ko walla haajo ñanta toppatole le mbeydanta hajo la bar momo fanan fana goro kadi fana fanan ya fan hajo haajol soto mais ya lon ka has to be treated differently baadiŋolu ñin kata de alon kata fayoti fayo bela kata fayoti atala ma be nin kata fayo lebe chance di lale ale tambon roke mol tema mele alon kafa ko imantra e palaso nyinin kan kadu ko laf kela ko di nyinin bundale ti mol mele alon kafa e ko ilaftale gambia be bata men kono ka bondi jeto wo choice wala bulu ali ajube sanjilulu koma mo mem mambu jang lono bi bu jang lo ali ajube ali ajube melan ko be barata ka corruption of fight ban be nga jere ka ko na lord mayor tinyaro kata kan fi municipal council to mena a gulita ko wo tinyaro nyin nga dankala mele tinyaro ke fo luwa ta fo luwa sita mekan kan bar man sa kuda ya tinta ayala jeto kata kela adu lord mayor be menta man kan kan udp la philosophy long what corruption on has to be fought against so alo choice la bal choice me alon ka ko for gambian ko albesonal ka kontine ban balwatar ko le aral bulu albesonal ka kontine ban ka ko ala loptan olto or tijeto niaje niaje niaje mbodanan kiyang kana ajanto menyanta tarla man sakko kolo ptando to wala man tura menyanta tarla kaya fula ptando wala ti jeeto no bi jeto no ntina la janto e benti be atal la jeto ba nyinam koti gambian kol nyanda men cross la ya jube fanya man sakko ndati ko e be men tombona kasinde e ko be ambulance tan sale sana ko sin sa sa tolto sa tol mele alon kafo ko an health to we mun nafal ke yebulan namba so uh, ambulance ko yesamba lopitano to wo lopitano borti je to islata maɗo wa musilan sollana mende wo be politique rang bari wonmamande e juttoɓe dambiyankola ko kontel manque hakkil malte so ga nene ka fo ko na eh, jata kendi a bunda mba topoto kanyo itte jo kende la docteur ola ni lano sisnio no la kende tebul je to even private clinics nol meliya donc through private initiative dalmenole la satol to das lá dasandu dasilamiñolu dooboñolu anin la eh, koteŋolu man sakunda man sonna bulo dunne koto ke makeyo ite make moolu ye ke koye ko dokulan naati je joto makoye boroto ye mara faro baro man sakkumamiran laftawolo na campagne o na ŋabande bolonkono sayin naata jande greta banjul area greta banjul area ŋa ɗon kabo ka telemde political power house tella kajiɓe men kelɓe kala présidente tella kaɓe men kala présidente tilko noon toon men tuta jeeto am tilko noon tolti men yalon ka ko beɓen tewle sitla kaje ko sondin soba na suki mo kulol meɓe funtila suuto kafo koɓe kartatiñakela bule aliŋa ɓule nooma ŋe be kanta kato kanatiñañim banko kan aliŋa kata galmi alan ko mu suutiyol ti nin karta fayo siita on the 4 of december ngana dimbalu nge funtindi nga loy ñaato nge samba karta fadulato yala karto fay al nga kata ka fako ñum tolu mela nga fako keje borla ibe denki dolala e ka kibarol di ka membe ilhamo ikole fonye ila borome kake ikome ka tiuti be bloko ilhamo ni ikole fonye ilhamo ni amanka hamonye di ka fako amanka hamonye di ka ya adabo tale amanke ñente inchallah inchallah inchallah wintale bare ko message o men fay wintale amanka ñente kaabo ko lafta ronga place o laftale ko ningo wino keta fanninkowol gambe fanninkowol haajo ŋaloola wala yaatanaali funtitaten adu ŋañin laahiɗo taali allah baaba ñin laahiɗo taali allah mamama ñin laahiɗo taali kaa fo ko naali hen sin nden min kala fon gambe fonditole anu sonda min gambia ko ala baraka ba Gambia ko be nakumo dabande men na wonon nimmol mel tata kab nimmol mel tata do ko nyinna aji yam ndajabo aji honorable bakar bunja dabo mari sok anin mo men be be campagne fon ko do ye kor sono yandi mulu ye kacal dia ye kacal sono yandi mulu Gambia ko li yeje Gambia ko li yaje kafo ko ni mol ni mol men futata majande e be kilinda sono hammoɓe yalon kavoko del gambian ko lafta yole tamanni ila kon daro fe ay content baake ne security forces piu official nimmen dada alhamdulillah ifana yekatoke yan tankandi inina security unit initele do koke kabri do ko kuma ño famo keta bawo wato do men ka problème onat moltema ño fa hambal yalon bari na security anim fan la pa campagne timole yale kam ko nyen mo gambia mele on kam ko je uniform du la e be do ko la adu gambia ko e fanal bole to on kontanta bake ye do ko ke nyame adu ko e nyaba bake dimbe me itan lan ka ko kontel gambia dinglu dam manglo mo mo e do ko la dawoda ngam nyomuta adi be do ko la damen fana e kana landa tambo ki je do ne ma landa tambo ki je to dron wala e dimol be benale yaw na media timo fanan yakata bake koku abe ke kan le kañori foño kono dunia be baje kan uh, ah, television station o dolu man son nan programme jor fen kala bar wo makendi duniya malon be mento dunia yalo le men mento adon dunia apprécier le fana bar wo fana wo fana wo fana manke tanati kadu fonko bi be ñin jamano mento ñin politique jamano mento pati wa e pati itata dawoda womu mu nin do itata e dawoda do television ol ñanta bula la normal e be men fo kanje ya data ya fo gambian ko kat news la mo nin danu te np nup ha nup ha nup na tata dawoda television ol be ñanta bula le normal membe kerim banko ke be men fo kan ya fo was the same thing for UDP. bari manyana pati tombona de e kablo da manako wolnoma. Yeah? duniya mu yɛlɛma yɛlɛma su le ten duniya mu yɛlɛma yɛlɛma su le bari wa bɛɛ wa bɛɛ ɲa o ɲa wa bɛɛ ɲa o ɲa na fɛn fɔ duniya kan mɔɛlɛ bɛ mɛn fɔ kan janto bi ñin at ñin tembo ta ten duniya ba je kane duniya bɛ kane woto a media molu bal tentula bal jayla al mo kende al banku din kende La be kala blenti sabale tentula tida Tira tida ture mbarende ma nakanja nakanja na, nakanja uh, eh, touré o fana mbari ani ñuulo daabo ndimma uh, ah, walen kono mutade ñin waako domoro domoro domoro diyata daabe a siyata daabe e godrone naati mole how evaluate thank you very much ala baraka baake bari kontondiro eh, dentro labang bitamelia mbooloo United Democratic Party la jaramba baa ni nga ne ni nka mura menna United Democratic Party la kiamba ninti lo candidate nga doko londe nga menka kan pour nga sidu United Democratic Party la sulamba baa ne li alon ka foko eh, wala tambita suufe ñola yeah? tent la mbe di diaspora Gambian diaspora, Gambian diaspora, amanke nyin daman kavoko, yele Fungleta kake, UDP la campagne, oka UDP balunde. But Gambian diaspora, jamale ticket okundi, nyi wato kono, ibe jikanda nondrong, every day, ibe to participate in the elections, in the campaign. Kaja ko, itel de, bakoton fenyo, itel tambida bakoton fenyo la le. hununnomo biilomo mo walba fala ko diaspora mo bakotol nyoje bar kunu even june transition wa wato mastat momena in in january diaspora kambeng diaspora ko men damman jinde ñimbanko kan million lomo bar bi nak ni kada bako noon feñode alhamdulillahi wota kasiti dole baati koton feñolo ntel ntel ntel a jaram baalo nasirtulam baalo mo so mboy seedi kan inila molu from the united states of america from uk ngandi mafula janto kunu amembe be kayaf i think i was in kayaf uh, i started burning at sanya and then um, jara jara sane yes so yen terendi jeto i was so pleased and many more are coming. Yeah? But uh, na, na chairman uh, in uh, gas chapter, yeah, Alhamdulillah, diaspora, diaspora, if United Democratic Party is an engine, you are the fuel that makes it work. I thank you all. Allah barakabaka. Uh, Hamna ne tahawa bi yagana. Tahawa bi yagana. waaye man jaka a yalla yàlla suñ borom li ñu may fan fekke tay rubi tay alhamdullilah ben la bo xamne mus fe am ci réew mi te ben parti du ko meuna am gannaaw United Democratic Party waaye yéen yéen ay nit yi you are the people yéen na mon sen parti mang len di gërëm ah, ci campagne bi nak dafa am jamono bo xam ma gennon ñibbi ci go kombo parce que afta bima julé euh, takusan may may lal euh, sajaada bi ma faxatul danu suma xiib bi xaw am problem, ba kom amun ben facility man sa konko health center dama ñëw Banjul fi, pour ñu toppatoo ma maa Uh, West Africa Holistic Center ci Kololi ak Afrique Med liggéey ñi fa nekk ay nit yu baax la ay professionnels lañu ñu am ité lool ci wér-gu-yaram nit particulier ci man Afrique Med seen noosi si every ten minutes dañoo ñëw di ma check every ten minutes dañoo ñëw seet naka laa def seet ndax sama métit bi wàññeeku na ndax wàññeeku mag leen di gërëm surtout docteur Marena koo xam ne moo ma toppatoo te alhamdulilah eh, soo gisee may mun a génn fii ñëw taxaw fii dégg nga docteur Marena liggéeyam la moo liggéey bi jógee baara nag wër Gambia yëpp façon nit boo mën a xalaat tase nañu ñoom ay lu yoo xam ne day ñëw dama wax seen soxla te xam naa ne seen soxla principal yi et eh, na dafa nak affaire dund fi ko nii solee ma xam ne ñooñu dañ soxla ndimbal gis naa fa ay nit yoo xam ne dañ jógee Sonkunda ñoo be Fatoto koo xam ne mun dañ ko epti not not carrosse wheelchair bed biit wheelchair mi mel ni bed lal ci loolu la loolu la lifi bi ñëw be eh, nga xalaat diggante Sonkunda ak fatoto du am ité di jublu mu duga moto pour ñëw attend meeting fatoto Gambia ko ñor looloo tamu def loolu yaakaar nag rëy na lool yaakaar boobu ñun ñoo ko mu ñoo ko mën a war a mutali mooy ne suñu réew mi corruption dañ koo xeex mooy ne suñu réew mi dañoo am interest for the economic development of this country duñ ne duñ jël place def ko utikaay utikaay xaalis buñ jël ne place yi politique la boo xam ne danga cee war a ut xaalis te di leen yëgal leen politicien bis muy wata saaku maalo ak teg ci teg bi doon diwlin di la koy sa sakkir ci jamono ji nga xam ne kooku daf laa brayo man nag du ma may kenn oo du ma kenn saaku maalo because dama bugg a place président because dama leen bugg a liggéeyal soo kuma su may su fekkee dama leen pare liggéeyal war ma leen a jox dara pour ngeen sànnil ma kàrta ma programme bi may wax loolu moo leen war convince pour ngeen sànnil kàrta ci dex gi nag ñoomu li fi jëndee nañu suy five point agenda bi en am na jigéen tuman na mu ne na Gambia ci coono bi nekk nii ñu gis ci ñàkk cee génn ci ñun la des ñu ñoo amee carte bi ñu ñooy war a decide da dem ba continuer ci coono mbaa dem ba génne ci coono te foog naa ni loolu moo war a nekk xalaati képp koo xam ne yaa ngi Gambia fii ñu United Democratic Party ci suñu fay pajanda bi adresse nañu affaire health health service delivery agriculture IT and energy education health health care all these tourism xam ne da dafa is create a capable state for the delivery of social services long lañ am five point agenda so juróom-ñeent fan rek a to the polls dimanche bi ñëw nii li ci topp ah yaakaar naa ne ñu win nañ naka di célébrer waaye balaa loolu dama bëgg ñun ñëpp ñu màndu ci lu ñoo wax ak ci ñoo def ñun ñëpp ñu bàyyi xel ne dara loo xam ne dafa is na ci réew mi ñun ñëpp naa ne li ñu kenn candidat si yëpp ñëpp dañ bugg place bi because dañ kenn ku nekk dafa foog ne mooy gën naa liggéeyal Gambia non non nag warta am suñu diggante ma bugg a place yow nga bugg a place loolu warta tax ñu ñu nekk noonu war ñu atop a hostile attitude towards each other ñu xam ne nag réew mi suñ defee dara loo xam ne dafa isi fitna ci réew mi bon it will not be of this country dama leen dee fàttalil all the time ak sama papa Père Ndiaye nekkoon nañ ci politique waaye kenn musta dégg xeex ak ñoom baaj gaaj baajaxum ba Chérif Moustapha Diba ak Kairaba Jawara xeecoo nañ fii ak Hassan Moussa Camara xeecoo nañ fii waaye mos loo dégg benn xeex même ci balaa time yaa jame sax and now once in a wadudanneka uh, digante party supporters dafudanneka digante united democratic party and security agency boobu la problème bi daan nekk all the time so you nag ñun si suñ jamono ñun si suñ jamono war ñoo nangu history history portrait ñu ak ñi nga xam ne ci final rek lañ dëkka ah. ñoom ci final lañ uute place ci final lañ amee place bi te ñu ngee doxal place bi ci fitna loolu war ñu nangu maa ngi leen di ñaan ne on fourth of December kër yi on the fourth sa karta yi naka karta yi naka nga jiital leen dem ci police station bi ngeen sànni ci boyt bi ngeen a sànni mooy boyt bu nette boyti bu nette bi parce que bu nette bi mooy naka moo ni Gambian people benen boy bo def sa carte dafa kasara. benen boy boo def sa carte dafa kasara. maa ngi di gërem di len sante di wax ndaw yi ne degana sen message sen ndaw yi di gëna daw li ngeen di taccu li ngeen di woy message la te message boobu degana ko bu ba te inshallah on the 5th of December Wanane on the 5th of December, we declare United Democratic Party elected. Then on the 5th, then you celebrate. On the 6th, then you celebrate. On the 7th, On the 7th, then you celebrate But Why? On the 8th, We bi dafa door maa ngi leen di gërëm wa وبركاته Yes, uh, digagan ko, Honorable Usino Dabor. Uh, finally, finally, wah na ag askan me, uh, yan ang diga, yan ang kugis. Uh, muna kaloham na nag uh, am interest la, uh, luam sa labo ba, uh, askan me, uh, Talib Ahmed Ben Sudangin, nono de Roma, waa ngeen gis ko parti leader bi comme num ko waxee mu ne yaramam bi neexut si ko defee rek yaa ngi gis ngeen dem foofu noonu nag la ko gaay di ko bàyyi ko moom mu dem bu ko defee final final ma ne ko finally we are done ma ne ko finally we are done uh, For rek la moo finally we are done and jërë ngeen jëf si seetaan mi ngeen a seetaan Gambian Talents team Lamin final message close Wow, finally we are tired ma finally we are tired rek nga waxal masi si soose ne fu na ñu ngee dem Lamin dafa soona torop assalamu aleykum mbaɗi jibirlali komin ko aliyaji ñamen doron gambian talents tv lo nomination omen bakeri la nation wide to mi yalon ko yakele so bila ibotanan bolon kono massive welcome min ketila jang so a Uh, ah, UDP la leader min kata loya Ousseynou Dabo ti ayala speak di dana comme ko December fort mo be sa try nga finti nga taga na quartier ete mari le alo ba fay la jumale bot be si amexo nga finti nga fay ala baraka baake La COVID-19 est toujours là, et la vérité qu'il est pour mieux sauter. Citoyens, avant de pouvoir recevoir le vaccin. Le vaccin là pour nous sauver. Vous n'avez pas besoin de montrer votre citoyenneté ou votre statut d'immigrant. Pour vous faire vacciner, on vous a peut-être demandé de fournir une carte d'identité, mais vous n'êtes pas obligé de la fournir si vous ne l'avez pas. Il est là pour nous protéger. Si vous ne l'avez pas, la seule règle est d'avoir 12 ans ou plus. Love vaccine.